waaye ngi nii seen gars yi am na kenn ku ci jàpp am na kenn ku ci jàpp policier yi ngi leen jàpp. force de l'ordre yi ak presse bi la problème bi ak presse bi la may ñu fu ñuy defee suñu liggéey daanaka ñu dàq fu ñu dem ñu dàq ñu mais lan la kii moo ñuy dàq kii moo ñuy dàq am na journaliste bu ñu door am na c'est une de nos consoeurs bu Dakar Buzz daanu na force bi Dakar Buzz daanu na force bi Dakar Buzz moo ak recherche ak les forces de l'ordre comme ni ngeen ko gisee policiers yi ñoo doon buux journaliste yi ba kenn ci waa Dakar Buzz daal cee daanu mu ngi nii ci suuf mu ngi nii ci suuf daanu na